mais euh, làmb jooju ñëwagul démb kii di Modou ak Ama Baldé dañoo waroon def jàkkaarloo seen premier face to face mais coow li bari na ci dëkk bi kon kii bi euh, jàkkaarloo bi yeggul man man comprendre ma daal làmb làmb fi mu toll jamono ji di yënga yënga yënga yënga lool. maa ngi jox conseil Luc Nicolaï te sama wax ji na ci bàyyi xel maa ngi jox conseil waa CNC Bira Bira maa ngi lay jax conseil di ko jox Matar Ba ndax man sëtu màbb mooy suma ñaareel suma soxna mu ngi tudd Adama Fall Mariama Ba mooy yaayam di sëtu màbb jaxu ba direct kon Matar Ba moo bokk suma goro mu nekk ministre boo xam ni en réalité man ku ko bëgg la ndax Matar Ba boo toogoon fii léegi woo ko ci deux cent francs da lay wuyu <clears throat> ndax xam ne ne nguur yëpp ay jeex Matar Ba maa ngi lay ñaan nga ñaan président de la de la république monsieur Macky Sall combat Ama Baldé ak Modou Lo xejul ci stade bi mm-hmm. maanaam stade bi mu ëpp stade bu Diop mais carton bi dafa gàtt. Mm-hmm. kon nag bu ñu bëggee mu egg ci jàmm nañ ko delloo stade de l'amitié ñu dellu jël signature bi waaye port bi dafa fees dell ki bato nañu dem waxtaan ak borom bato yi am na bato yu fa gaaree. pendant des mois lii waxtaan ak ñoom ñu jël xale yóbbu leen ci biir géej gi jël sax géej gi cërale ko ci làmb il est que suuf si suufu Sénégal la géej gi géeju Sénégal la mais na nañu séddi géej signature contrat amaa Baldé ak Modou ñu mën leen yóbbu ci biir géej gi yóbbu fa caméra yi laaj leen bu nu fa jógee ñu def comme ni ñuy def Modou Lo nekk parcelle wax la muy wax Ama Baldé nekk Pikine wax la muy wax mais Ama Baldé ak Modou Lo kenn mënu leen boole fii ci biir réew mi wala boobaa di nga génne LG Mbaaw génne camp Thiaroy génne police ñoo mën a gere combat bi fii ci biir Pikine mais bi ko tëggee te service d'ordre bi doyul làmb ji du egg. ñoom su ma su ma su ma juumul mooy innovation nga bëgg. Euh, ki nga xamante ni mooy Luc Nicolaï def ko te su ma juumul li xew ci keroog diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers may teg cumukaay bu doon Modou Lô ak Ama Baldé làmb jo toj na. day toj.